li làmb nangu ak li làmb bañ tas moo féete à gauche cargo moo féete à droite tas yaakaar cargo am na ay téere yu mu takk ci tànk ba orange bleu tas yaakaar am na benn avertissement cargo xale yi xaw na ñoo tolloo doole tas yaakaar cargo abi baa ngi wax ak ñoom Tass Yakar moo ngi dox ci kaw Cargo Baye Djili. waaw ah, Ousseyn Tass Yakar cokkaas na ñoom ñaar ñëpp ay mbëru simple lañ mais su doon may tas damay def ndànk parce que daa jàpp ni ay naataangoom ci làmb du Cargo mais na def ndànk moom Tass Yakar xale la boo xamante ni mën na bëri mais Cargo mi ndaanaan la ndax doy bëre simple daje naak ak Serigne Ndiaye numéro 2 mës naa daje ay ndaanaan jëli na ko gis nga ma ngay dóor xeex. lu ma la waxoon Ousseyn. waaw lu ma la waxoon jël na ku. waaw Kago daan na tase waxoon jël na ku Ousseyn la. xeex ba tegu ko ci yoon. jël na ku. xeex ba ko ci jël na ku ko bett. daan na jël bu ko mett parce que lamb Ousseyn saa su ne. sooy bëri ci lamb li nga mënee bul ko bàyyi. bu buñ la ñëpp ne da ngaa mën a bëre boo ñëwee waneel bëre. ba keroog xeex di la dab ci lamb mais tas yaakaar tey daa ñëw pour xeex. dóor Cargo tuuse ko mais daa Cargo da koo remise mu jël coup boo xamante ni vraiment yàq na làmbam loolooy làmb na góorgóorluwaat Cargo ñu ngi koy félicité bu baax wax naa la ndaanaan la boo xam ne day bëre ci lutte traditionnelle yi daje naag Serigne Ndiaye 2 daje naag ay ndaanaan yoo xam ne day bëre di perte waaye mu ngi wane boppam tas yaakaar ñu ngi koy encouragé xale la mun naa am lu ne ci làmb na góorgóorluwaat ñëwaat premier combat am fii la woon ci stade Iba Mar bi daa am ndam deuxième combat am daa ñàkk défaite bi moo koy def mbër défaite bii moo koy def champion défaite bi moo ko mën a boolewaat ci làmb Ousseyn. làmb ngi noonu bàyyi jiili Cargo daan na ki nga xamante ni mooy tas yaakaar